xaaj bi jëkk ci tawretu musa jëm ci saar benn yàlla sàkk na àddina fal ci nit ca njalbeen ga yàlla sàkk na asamaan ak suuf suuf nag dane woon maraas ne wéyëng lëndëm muur ndox mu xóot mi lale ca kaw xelum yàlla di wër tiim ndox mi noonu yàlla ne na leer nekk leer daldi am yàlla gis ne leer gi lu baax la mu xàjjale leer ak lëndëm yàlla tudde leer gi ba bëccëg lëndëm gi guddi ngoon jot suba dugg muy bés ba jëkk yàlla ne na aw dënd dox diggante ndox yi ngir xàjjale leen yii fii yii fale yàlla nag sàkk dënd wi xajale ko ndox yiy féete dënd wi suuf ak yi ko féete kaw mu daldi nekk noona yàlla tudde dënd wi asamaan ngoon jot suba dugg muy bésub ñaareel ba yàlla ne na ndox mi asamaan tiim gëndoo benn béréb ba joor gu wow feeñ mu daldi nekk noona yàlla tudde joor gu wow gi suuf ndox mi gëndoo mu tudde ko géej yàlla gis ne baax na yàlla ne na suuf sax ñax muy gàncax gu ànd ak jiwoom ak garab yuy meññ tey jur seeni jiw lu ci nekk ak wirgoom ci kaw suuf mu daldi nekk noona suuf nag sax ñax muy gàncax gu ànd ak wirgoy jiwoom ak garab yuy meññ tey jur seeni wirgoy jiwu yàlla gis ne baax na ngoon jot suba dugg muy bésub ñetteel ba yàlla ne na am ay leer ci asamaan ngir xàjjale guddi ak bëccëg te doon ay tegtal yuy ràññale jamono yi tey takk bés yi ak at yi nañu nekk ay leer ci asamaan si di leeral suuf mu daldi nekk noona yàlla sàkk ñaari leer yu mag gi gën a mag yilif bëccëg gi gën a ndaw yilif guddi mu sàkkit biddiiw yi yàlla nag teg leen ci asamaan di ca leeral suuf ñuy yore guddi ak bëccëg tey xàjjale lëndëm ak leer yàlla gis ne baax na ngoon jot suba dugg muy bésub ñeenteel ba yàlla ne na ndox fees ak ay ndiiraani xeeti mbindeef te ay picc tiim suuf di naaw ci asamaan noonu yàlla bind rabi géej yu mag yi ak mboolem mbindeef muy feey tey ràmm-ràmmi ci ndox mi mu ci nekk ak wirgoom teg ca lépp luy boroomi laaf lu ci nekk ak wirgoom yàlla gis ne baax na ba mu ko defee yàlla barkeel leen daldi ne giir leen te bare ba fees ndoxi géej mu neeti na picc yi bare ci kaw suuf ngoon jot suba dugg muy bésub juróomeel ba yàlla ne na suuf génne ay mbindeef mu ci nekk ak wirgoom ak jur luy raam ak i rabi àll lu ci nekk ak wirgoom mu daldi nekk noona yàlla dafa bind rabi àll yi lu ci nekk ak wirgoom jur gu ci nekk ak wirgoom ak lépp luy raam ci kaw suuf lu ci nekk ak wirgoom yàlla nag gis ne baax na yàlla ne nanu bind nit ci sunu melokaan mu niroo ak nun te na yilif jëni géej ak picc asamaan ak jur gépp ak suuf sépp ak lépp lu ci yaram yàlla dafa bind nit ci melokaanam ci melokaanu boppam la yàlla bind nit góor ak jigéen la bind yàlla barkeel leen ne giir leen te bare ba fees àddina di ko saytu te yilif leen jëni géej ak picc asamaan ak mbooleem mbindeef mu yëngu ci kaw suuf yàlla ne xool leen jox naa leen gépp gàncax gu ànd ak jiwoom ci kaw suuf sépp ak gépp garab guy meññ tey jur jiwoom muy seen dund naka rabi àll yépp it ñoog picc asamaan yépp ak lépp luy raam ci kaw suuf te di boroom bakkan jox naa leen lépp luy ñax mu tooy ñoom itam muy seen lekk mu daldi nekk noonu yàlla nag gis li mu def lépp fekk lépp baax lool ngoon jot suba dugg muy bésub juróom benneel ba saar ñaar noonu asamaan ak suuf ak li ñu ëmb lépp bésub juróom-ñaareel ba fekk na yàlla matal liggéeyam mu dallu nag ca bésub juróom-ñaareel ba gannaaw ba mu liggéeyee loolu lépp yàlla daldi barkeel bésub juróom-ñaareel ba def ko bés bu sell ndax da caa dallu woon gannaaw liggéey ba mu sàkkee lépp